jëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi situation Sénégal fi mu toll actuellement mën naa ne dëkk bi gis nañ loo xamante ni mësuñoo gis Sénégal gu mel nii li ko waral muy lenn coow muy coow Ousmane Sonko rek ak aji sar tax ñu fekk si le grand saltigué séeréer bi muy Sidi Ahmed Sarr borom kër jegaan caare mu ne ma kaay ci àll bi fii ma wax la ma leeral la loo xamante ni. fii wekki fan la ci Sénégal teg seeni bët mbokk yi li xew ci dëkk bi tey ñu bëri koy mettitlu mais laata loolu dañuy bàyyi sëriñ bi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi euh, saltige ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah dégg ñu ngi leen di fay nuyoo bu baax o fogale séeréer mexe simnaa nuun wena nan gilwa inna diaspora faye xurefna gonof simangolof xeɗana nuun jam xeɗa nuun tamit nu xeɗana in jam njasam roga fi'na sénégal faye i ñoowa jam machallah alhamdulillah dégg bismillah saltige fi sénégal toll ñu ne Sonko Adji Sarr mais lu jiitu lii lu bëree bëree bëri waxoon nga ko bi at mi teroo newoon nga ma nañu def attention ndax ñu ngi ci at moo xamante ni kilifa yu bëri ñii danañ leen jàpp ci kaso bi ñii danañ faatu waaye ñii danañ am jafe-jafe pourtant la nga waxoon dafa mel ne toll nañ ci moment boobee saltige lan moo lay wan. macha allah alhamdulilah dégg comme ni nga ko waxee rek sant yàlla bu baax. Euh, li nga laaj dafa am solo parce que ñun ñëpp dañoo bokk ci réew mi di Sénégal. muy séeréer muy pulaar muy joolaa muy. mboolem làkkat yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal Sénégal xëjoowu dara lu mooy jàmm rek ak salaam macha allah alhamdulilah te toujours dégg damay wax ne nañ bàyyi xel ne. deretu muus bon na lool waaye ci muus mi la gën a bon. deretu muus. bon na waaye ci muus mi ñu rend ci la gën a bon. saltige looy bëgg a kon nag nañ bàyyi xel suñu réew mii. Uh-huh. réew mii nag dégg laaj nga ma ci wàllu mbiri sax. Euh, politique waaye man politique du ma ci wax xam nga li tax du ma ci wax toujours damay wax ne lu la dun may dara bu ci wax dara parce que jamono ji laajul loolu jamono ji toog di ngal-ngali war a toog daje comme ni ma koy waxee suma mbokki séeréer yëpp nañu dajee ci pénc ñu waxtaan ñu seet Sénégal lan moo ci indi jàmm buñ ci tàggu kenn du góor di jigéen buñ ci tàggu kenn nañ def suñ xam-xamu bopp yi ñu yóbbu ci selebe yoon yi ñuy yóbbu ko yi ñuy def ñu def ko Sénégal am jàmm boo ñu déglooti kenn Sénégal kenn moomu ko benn bopp la te duñ nangu kenn xar ko ñaar dégg saltige ñëwul ci xoy macha allah xoy lu am solo la jëm nii soxla nañ ko sax parce que da nga dem ci kanam rek tuuti balaa weer da nga dégg ne saltige yëpp ñi am jot laa wax ñëpp danañ daje ci penc def xoy yi xoy yi lan lañ ñuy wax lijjanti ci xoy yi mooy li nga xam ne moo war a am ci nawet bi te nawet bi kat dama wax ne mag ñi dañ daan def su nawet jotee ñu dajee ci ëtt xale buñ ñëw ak mag ak góor ak jigéen yëpp ñu léemu la def la liñ la war a def bu boobaa nag xoy nag ci loolu la jógee moo tax nag xoy ma ne la fekk ay fan da nga gis ñi am jot danañ daje pour wax li nga xam ne moom lañ gis ci nawet bi waaye lépp nag yàlla nay nekk jàmm ak salaam parce que ñun jàmm rek lañ soxla jàmm lañ bëgg ci Sénégal jàmm moo tax daje bii ngeen ñëw fii seet si ñu jàmm moo leen ko may kon nag loolu moo waral xoyte inchaa allahu taala lu néew tuuti rek fogole séeréer inchaa allahu taala danañ daje ci penc mi inchaa allahu taala na ngel ne i mbaxtaan inchaa allahu taala ke roog la ke rooga and na daal inchaa allahu taala xan seet looy seetee dangay def xoy wala dafa am beneen méthode booy seetee. waaw man nag su ma seet comme ni mu koy waxee. ñun comme niñ koy waxee dañ ñuy tooñ comme ni ñun ay tuubeen lañ. léegi ñun dañoo dellu ci wàllu listixaar di ko def. donte yàlla may na ñu ci yeneen i dégg. waaye soxlawuñu lool. luñ soxla rek mooy liggéey ci su lu sell. lu leer ñu wax la loo xam ne rek moom lislaam nangu na ko macha allah. saltige tey dama ñëw bëgg a jël xamb yi nga ne ma xàmb yi du lu ñuy filmer xamb yi du lu ñuy wane waaye kaay ci salle bi ma am lenn lu ma jël ci xàmb yi wan la ko gis naa nga jël morceau bu xonq teg ko jël lu mel ne ay reen ak i ba ci tañaat sax gis naa ko nga teg ko sa wet saltige tey yii sa bagage yi maam yi moom nga génnee ak fu situation Sénégal toll ak mbir meeg coow li. macha allah alhamdulilah loolu soo ci laajee dafa may neex lool dégg ma waxtaan ci ak yow fii laay njëkkee. gis nga lii. damaa ne yépp xam nañ ko ku am xam-xamu séeréer xam nga ko mhm. lii guy la goo xamante ne reeni guy goo xam ne mhm. nit dafa dem daanu ci guy gi dee te xaru taxul la faa dem dégg nga wax ji xaru taxul laa dem ca guy ga mais danga ngaa watti woon guy yéeg fa daanu mhm. génn àdduna reen yooyu moom lañuy ñuy ut lii mu ngi toll ci fukki reen téeméeri reen laa bëgg a wax. ak fukk ak ñeent. dañ ci liggéeyal nag càngat la loo xam ne. essayé nañ ko ci leket soo ko defee ci leket mu toj. léegi ci siwo yi rek lay ne. dégg nga. li ci ne ci xam-xam bëri na. Mhm. ci cat ci làmmeñ ci nit kuñ bugg a néewal doole wala kuñ bugg suufeel wala kuñ bugg a toroxal loo gàkk gàkk gàkk. Mhm. macha allah suñ la ci suñ la ci càngatee sa lépp pare. nga nekk bitim rew nga ne ci réew mi. danay ànd ak pàcc bii. pàcc bii nag na newul ne pàcc semmeñ la rek dem jënd ni ma ko bëgg a waxee ci séeréer ñu xam ko mooy comme nit ñi olof lañ gën a dégg ñu ne la lii tëgg bi koy tëgg ndey caam baay caam yaay caam nijaay caam ñooñ ñooy tëgg lii loolu moom ngay am pour boole kook lii uh-huh. yaa ngi dégg lii moom ñëpp xam nañ ko lii laxa ah, bu mbaam la bu mbaam la waaye lii tamit doo ko jënd dégg da ngay dem waa ji tekki saretam nga sàcc ko donte sàcc garaaw na boo sàccee ba raw nga doog a dem won ko ne ko uh-huh. man day sa biir laxa ba nga doon laajte maa ko sàcc waaye nag ñaata lay jar nga doog a génnee weexal jox ko mu doog laa doo doomu mais doo dem tàggu ko pour jël ko mm. doo dem jënd ko ci ku koy daaj mm. ngay fekk la mbaam ñu laxabee ko ba mu seex ko ba pare parce que mu ngi dem ci wàllu gémmiñ wàllu làmmiñ mm. nit ku la dot nit ku la bëgg a toroxal nañ ko suul fu ñu mën a suul liggéey bu bon boobu mm. su booleeg yii ñu lay wax suñ ko suñ la ko càngatee tolof tolof boo am dafay dañ yaa ngi dégg bii moom xam nga ko ñu koy wax xeeru dënn garab gum dënn ba rey ko soo demee nga gas fa ba dajeek moom nga jël ko tegtal xam-xam yi ci ne mënuma la koo wax sagar bu xonq bii ngay gis ñu koy ëmbee pour saasaa yi buñ ci saw uh-huh. bu ko kenn yàq parce que askan yi buñ la yaakaaree xam nga gis nga wax ji bëri na mais faj moo jafe uh-huh. maanaam defal nit ci yaram yaramam mu dem tëdd nelaw gis résultat ci yaram bi moo jafe te macha allah yàlla may na ñu ci loxo bu gudd ñu ngi ciy jëriñ jaamu yàlla yi Sidi Ahmed Sarr saltige uh-huh. saltige tey dama gis nga delluwaat ci sa cosaani maam yi andi wëñ gu weex tàll. takk ko fas ko fas ki euh, bëgg naa nga ñëwal ñu ci lan lay dox. waaw gis nga bii. kuy séeréer xam nga ko laa wax ku gëstu ci xam-xam. waxuma kuy tëdd di nelaw nag. dégg nga. suñ la ko liggéeyalee ba pare. alaaji dégg. gannaaw amoo mënoo am malikaan boo xam ne. doo ko jënd. da nga koy am nga fexe jënd ut ko. soo ko jëndee ba pare. li ma bëgg a wax nga koy jënd ba pare nga dem si sën nga gas ko nga suul ko bu fa amee ñetti bés yu ay nga doog koo jël nga fóot ko ba mu set nag nga doog cee def gàllaaj gi dégg bu nekkee sa ndigg te tojul xaj bu sayee màtt la du dugg sellam du la dugg soo egoon avion avion bi daanu su dekkee ci biir déeg te mu ci sa ndigg dégg dama laa wax ne doon suux mm. soo eegee oto yàlla tere bu oto bi nee këlëb daan da ngay jóg ne asubillahi mina seytaan rek da ngay faxasu rek li ci nekk ci mbir dafa garaaw waaye nga yore ko nekk ci place ku la ca génnee dana la yelwaan si yow. kon ci place. képp ku ci nekk laa la wax yore ko. nga nekk ci place nit xeex la ba am pexem bu génnee la fa dana la yelwaan si dépasse. ginnaaw kaaraange saltige yi ñu waxtaanee alal waxtaanee bayre digg naa yor nga cangaay yu garaaw ana cangaayal ganaar gi nga xamante ni ci xaalis lay dox nga ne ma cangaay boobu ku ko sangoo même boo tëju woon sa kër sax ni doo ubbi nit ñi daaj sa kër fekk la fa jox la xaalis ngir. wërsëg dara macha allah mu ngi nii uh-huh. ku xam séeréer wala nga xam pël yañ gën a soxla. muy taal ay mbir dañ koy def ci ngise bu ndaw di ko nëbb dawut luy ànd ak affaire yi mu ngi nii waxuma la sax càngatu ganaar gi mu ngi ci waaye gis nga dégg nga yore nit ñëw jaay la pàkk jaay ko fukki nit ñuy xëccoo jëlal garab gi ci nekk nga wis ko ca te dem tëdd nelaw danañ la bàyyee pàkk ba dégg nga nga nekk ci societé ligi def ci sa xaalis nit ñëw ne da koy dindi su suñ ñëwee suñ cooyee ba pare wis ko ca te dal nelaw danañ la ko bàyyee lii man maa la ko wax yàlla lim maye bëri na waaye bul wax ne yow la may lépp ñun de am na yàlla lum ñu ettal tuuti rek may ñu ko donte bëriwut suñ delloo ci alxuraan wax na ne wa maa utitum min illa qalilan dégg nga kon nag yooyu yëpp yàlla am na lum ñu ci sédd doon te bëriwut waaye ñu ngi ciy jëflanteeg jaamu yàlla yi ñi ci biir ak ñi ci biti ba macha allah loolu moom xamee nañ ñu ko. cangatu ganaar gi lan lay def. cangatu ganaar gi day ubbi nit dafay dindi cat. ku umu ba nit mënut laa xool gis la. Uh-huh. nga dem ci sëriñ mu ne la man de mënumaa gis dara yëf yi lëndëm na. Uh-huh. soo ñëwee suñ la cangatee ci cangatu ganaar gi. Uh-huh. paa lay càng sax ci njaq lii. yaa ngi dégg da nga da ci tekki te xam nga cat kum bàyyi nga am xaalis est-ce que xam nga loolu mag ñi nee nañ cat ci boppam dafay jàpp gëlëm ba yóbbu ko ci cin dégg nga cangatu ganaar gi doo tuddee ganaar dégg fii léegi mu yëlëbu nga ne ganaar gi moo rëy wala ganaar gi weex na tàll mu yëlëbu wala mu neefare cat nag bu la génnee ci yow nga am xaalis suñ la ko cangatee macha allah da nga am dara da nga sant yàlla macha allah alhamdulilah. sëñ bi nga ne ma jigéen gu bëgg jëkkër. Mm-hmm. bu la neexee bul tànn am na loo xam ba ma la ko liggéeyee. Mm-hmm. góor gu baax mooy ñëw. Mm-hmm. takk la te yaa koy gënal ñëpp. loolee bëgg naa nga ñëw ci diggante jëkkër. macha allah alhamdulilah diggante jëkkër ak jabar. dégg góor gu bëgg jabar. Ah. te umu. jigéen ju bëgg jëkkër te umu. na nekk faru rab. yama ci am ci tegtal motul xef xippi waaye cangat bii su ma la ciy sangatoo est-ce xam nga ne mu jeex takk bu dee ah. faru rab la mu jeex bu dee nita la ko def mu jeex mhm. lu la ko mën di def mu jeex waxuma laa nag duñ dugg sax ca ya nga xam ne moom moo koy def mhm. ak lay bindal jox la mhm. waaye cangat bii rek ñu tàngalal la ko xob bi la ci jeex na demal neex yaay tànn kuy ñëw yaa ko bëgg sa digg naa da ngaa a nopp macha allah am na lu ñu ci yàlla may ci loxo bu gudd dégg nga lu gudd a gudd yàlla may nañu ko ñu di ko def waaye nag sant yàlla rek parce que lépp lu la yàlla may deel wax alhamdulilah ndax yàlla yokk ko waaye loolu tegtal yooyu yëpp macha allah am na lu ñu ci yàlla jox ñu koy def fii ci réew mi ak bitim réew ni ci di di ci gis seen bopp kon nag dégg oga anga tik fato tik taxun mi daal lay kim ka andoona yee andinum ku layoonga meek rek uh-huh. andaam teen tig uh-huh. jegaam teen ka andoona yee kaam dasan sax dama koy nëbbu li ma li ma bëgg uh-huh. li may jëflanteeg jaamu yàlla yi ku ma gis da ngay kontaan parce que da ngay xam ne li yàlla maye dama koy def ci ànd ak laa biir incha allahu taala góor gi daan na wax ne eh wax dëgg yàlla doo ñëwe sax boo amul paas cangat la rek nga dem wax dëgg yàlla boo amul xaalis sax ñëwal waaye nag jamono ji dematuñ foofu dégg soo ñëwee ci man ma ne la jox ma junne da ngay dem seeti ku lay laaj cinq cent mille moo tax léegi yëf yi ñu teg ko ci ko teg ko ci yoon macha allah. Euh, saltige euh, tey këyit ak papier bàyyi na ñenn ñi bitim réew ban saafara moo ci gën a gaaw ngir nit ki am papier wala sax nit ki am visa tukki. macha allah loolu am na yu am solo yuñ ciy def dégg danañ koy liggéeyee ci garab fuyu faaya danañ ko ciy defar uh-huh. séeréer am na garab gu muy wax ndong danañ ciy liggéey loolu uh-huh. pour ñi nga xam ne soxla nañ kayit uh-huh. ak ñi nga xam ne luñ yore mu naaw ba duñ mën a dajale dara loolu yëpp yàlla may nañu ci ci wàllu kayit ci góor ak jigéen nga di ko déposé fii mu jafe wala nga dem foofa am ut ko mu jafe wala heure boo amee rendez-vous bu ñu fausé la soo ñëwee fii mu saafara bu àndeek dogalu yàlla bu dee ki nga xamante ni day faral di am am amamam di faral di yàqu am am buy dem bëgg naa nga dugg ci. ah loolu moom mooy li ma la wax garabu ndong bi daf koy saafara. da koy saafara même même siwo bi soo ko sangoo da koy dindi. rab def dégg naa dana téye nit sax tere ko am doom. waaye dana téye góor di néewal kàttanam. ñu dugg ci rab waxtaanee rab. waaw wàllu rab comme ni ma koy waxee. liñ ci am. dégg ko liggéey. yàlla may nañu ci lu wér la. béy rek soo ko amee ñu saafara ko. te wax naa la ne wàllu rab nit ñi nangootuñu koo laal léegi ku ci yàlla mayoon dara boo commencé njaboot da koy bàyyi wala ñu yebal la ci séeréer si rek incha allah ku ñëw daal méngoog liñ la lim la laaj nga am ko incha allah ñu tàggook yow ci loolu sa ajo faju Sénégal yenn sarax nga jàpp ne bu ñu ko defoon tey jàmm dana fi dellu si Sénégal ah ku ci nekk borom kër gu nekk nay faral di def ñaari kiloy dugub mhm. jox jigéen ñaari kiloy mboq jox góor mhm. suñ ko defee Sénégal nekk ci jàmb Sénégal lu ko réglé lu yomb la mhm. waaw lu ko réglé lu yomb la te wax naa la ne séeréer yi danañ ci jog incha allah ci ay fan yu néew loolu ñu réglé ko parce que Sénégal gii suñ wëllu yàlla yi liñ fi def dootuñ nangu mukk ku ko sañ faañe ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. macha allah dégg bala maa tàggoo li may jàllale lu néew la rek. wax ne dégg. suñ kilifa yi ci Sénégal mhm. nañ leen jox cër mhm. damaa waxoon ne duma ma tàggoo mukk te waxuma ko mhm. wallaay am na ñoo xam ne buñ leen mayoon digal rek ko waxati dootoo wax waaye xam-xam du loolu xam-xam jëriñut loolu nit dangay fees tey maslaa dégg nga ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale loolu yonent bi bëgg na ko waaye damay wax ne ndaw yi toog seeni ruq di tuutal suñ kilifa diina yii nga xam ne ku ci nekk boo demee ci sa saal ah, muy Medina muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy Touba foo mën a dem kilifa goo dem boo demee saal bañ ko tegal mat la mat matelas ba nottu na ba jeex ngir la muy fanaan nekk ci askani Sénégal waa léegi nag yow xale bu ndaw nga bugga toog ci média lamp yi tiim la ngay wax lu la neex di ko jëmale suñ kilifa yi ñàkk teggin yooyu ñun dootuñ ko seetaan nañ ko bàyyi ku bëgg jàmm na ko ba wax naa la ci commencement bi ne deretu muus bon na waaye ci muus mañ rendi la gën a bon nañ jox suñ kilifa yi cër wala kilifa yi maye ndigal ñoom toog seen ruq yi dégloo yaa ngi dégg kenn daal kenn yoo kenn bug mo lay yoo kenn daal ah ten jeg ka andoona yee xam layin teen o fogole na séeréer wena nangil wa in xurefna na diaspora faye eh, gonof fo simangolof in way xeɗana nuun jam xeɗa nuun tamit nu xeɗana in jam machallah yasam roog fi'na sénégal fa yeeg i ñoowa jam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dégg ngeen Sidi Ahmed Sarr saltige tey eh, waxtaan wu am solo yi mu waxtaanati nekk na waxtaan woo xamante ni ku ko déglu xam ne borom xam-xam moom moo doon wax jàngalekat la ñaankatu yàlla la waaye fajkatu aajo la ay ci numéro yaa ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp duñu ñu ci improtive TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah